dina ànd ak délégation bi lépp dañ ci agsi waaye mbooloo mi dégg naa fi xasida yi ñu gis bu mooy bu mu xaddimaat ak barsan sëriñ tubaa li ko yàlla defal moo jafe ku ma ko laaj rekk fekke déwén li yàlla defal sëriñ tubaa ci gàmm moo jafe fi muy gàmmoo moo ko moom la muy gàmmoo moo ko wax kon ciy sëñ Tuuba lu tax mu wax li mu gàmmoo mboolem liñ fi doon jàng rek sëriñ bee ko bind barab ba mu koy defe it moo ko moom te loolu nag yombul mu daje ci nit man ngaa moom fa ngay gàmmoo te doo wax la ngay gàmmoo mbaa nga wax la gàmmoo te doo moom fa ngay gàmmoo moom nag moom moom fi muy gàmmoo wax li gàmmoo ba noppi moom ñi muy gàmmoo kon na ñëpp jóg taxaw ni jërëjëf Serigne Touba ana Ibrahima sattaayi na wuli loxo ci kaw bàkkaar ci suuf sattaayi na wuli سيدنا محمد هو الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق محمد فتاحينا ولدا di ko Serigne Touba di laata way da koo tudde juróomi doom Mouhamadul Kabir Mouhamadul Yeddaali Mouhamadul Moustapha Mouhamadul Fadal Mouhamadul Lamine ni maa ngi dem ci géej gi sama ginnaaw ko judd tudde leen ko Mouhamadul Bachir bàyyi Serigne Mountakha. ma di wax ni nag xalimaam yombul Serigne Touba nee na gars yi nàgg rek nàgg rek nàgg rek sëriñ Touba nee na sama xalima yombul toog leen toog leen toog leen waaw àgg suuf loolee jolle woon ca Makka ba tax ñu naan sataawu na wuy daa la jolle ca Makka te ko taalife fii ci Mbàkke kudul ka ca Makka doo fii ci Mbàkke li may bëgg a wax defagoo ko neen sataayi na wuy daa sataawu na wuli daa bu yemoon ci tur wi rek doy na sëkk ma bu yemoon ci turwi doy na sëg ba mu ne maay xaadim ba tey kenn newul ak xaadim deux amul xaadim trois amul xaadim képp kott rekk dong ni sa tay na wuli daa mani koo fi gis koo fi gis ci suuf si la gàmmoo waaye sëñ Bamba ci géej la gàmmoo lu tax lu tax wajahtu waji liman takayubahu baana fi chahri mawlidi man fil bahri man fil bahri def leen ni seen loxo man fil bahri man fil bahri rabbana kooku nag mooy sëriñ bu mag bi ci dëkk bu bi ci jumaa ju mag ji ci dongo yi ci tukki bu bi kookoy mooy bàyyi cheikh ahmadul khadim bàyyi cheikh mahamadou moustapha bàyyi cheikh mahamadul fadal maami sëriñ kon kooku nag moom lañu daje fii tey ma ñu mbokk yi demoon naa bay bëgg a tàng waaye dafa am lu ma bëgg maa ngi félicité wala maa ngi sant bépp taalibe waaye nag ñoo ngi ci jiital sëriñ bi xool leen jumaa ji juróom-ñaari at bu pare amul ci monde islamique benn jumaa bu ab sept ans mel nii ba pare nag tol nii kenn defu ko ku dul sëriñ bi ak dongo yi taxawul ndar di làkki arab pour ñu gëm ko taxawul ndakaaru di lakki arab ñu gëm ko demul ci benn réewu arab demul fenn murid yi sët yi léegi nag dafa am lu am xam nga mille cent quarante mille cent bi ko sëriñ bi laajee ni jubaa ji mille cent quarante moo koy tabax da ngeen di laaj lan mooy mille cent quarante ndeke day doo alaaji mbàkk yu monnaie bii di monnaie réew mi Sénégal mone bi mille cent quarante la pièce téeméer moo am pièce juróom fukk muy téeméer ak fukk pièce ñeent fukk muy téeméer ak juróom-ñeent fukk pièce ñaar fukk muy téeméer ak juróom-ñaar fukk waaye nag pièce fukki dërëm ñaar fukk muy pièce ñaar fukk muy téeméer juróom-ñeent fukk pièce fukk kon pièce téeméer pièce juróom fukk téeméer ak juróom fukk pièce ñeent fukk muy téeméer ak juróom-ñeent fukk pièce ñaar fukk muy ñaar téeméer ak fukk pièce fukk muy ñaar téeméer ñaar fukk pièce su juróom muy ñaar téeméer ñaar fukk ak juróom pièce ñaar dërëm muy ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ak pièce su dërëm muy mille cent quarante loolu mooy mën a Sénégal gaa ji teg bi ma koy wax nag sëb si ci jaar ji sëb si ci nopp jaar ji laa koy bi ministre des bi yor xaalisu réew mi tey muy ministère des affaires étrangères nee ko monnaie bi mille cent quarante moom lañu ñu tabaxe suñu jumaa ji turu réew wa nag tur wa tur wa nga xamante ni boo ko dóoree rek am xaalis loolu moom bind nañ ko ci aras mais mënu leen koo wax li ma bëgg a wax rek moo di li ma bëgg wax rek moo di ah Ibrahima sant naa la sa taay la wuli daa mooy mbuut mi waaye man li ma bëgg a wax rek moo di bépp taalibe bu xamante ma mas sama yëkkati sama loxo laaj na nga def ci jumaa ji sant nañ la waaye Serigne Touba li mu wax daa garaaw ku ma liggéeyee dem àjjana mel num Cheikhul Khadim képp ko wax inna lasiina saari'oo li xidmatihi fa law mu diyaaran wasta jana ci digg capital bi Serigne Touba nee na ci digg àjjana ku ma liggéeyal ci digg àjjana ngay dëkk te doo ci yor benn kër doo ci ñaari kër léegi nag mbooloo mi sëriñ bi ñun ñëpp jëwriñ santal nu sëriñ bi tabax na jumaa ji ba jumaa ji àgg léegi nag li ci des ñun taalibe yi ñoo ko moom mooy julli si jumaa ji waaye nag yor jumaa ji li sëriñ bi def c'est pour sept ans àgg na waaye ñun li ñuy def à vie kon jumaa ji courant bi ndox mi entretien bi defar gi ba mu baax ñun ñii di murit yi la war kon nag danaa leen wax rek ni leen nag talal naa sama loxo ku bañ a ñàkk rek dama fekk fii ñu war a tàmbali nag entretien bi war a tàmbali ndox mi war a tàmbali courant bi dajale leen ma fii bëgg naa dix millions la gaaw amin te foo gestu gis ma murid yi gaaw leen waaw kay ku ma jox junni rek sa aajo faju de yéen yey de maay sëriñ am man ku ma ne am rek am ñoo ci yow ndànk rek a ndànk rek waaw leen ndànk rek ah gars yi def leen ndànk waaw ndànk rek waaw ndànk rek waa ndànk rek ah déedéet baay mani maa woote indi waa toog leen waa ndànk rek am toog leen waa sotti leen sotti leen rek gars yi def leen ci waa kay déedéet ndànk rek eh, ndànk waa gaaw leen ndang ndang ndang ndang yéen de ndang waat na gaaw de ndang waa leen góor na ñëw de ndang ndang ana Moussa waa gaaw leen waa ku ma am rek am ñëw ci yow de waa na gaaw na gaaw na gaaw gaañ na mbay toog leen may nañ ma rek nañ ma may juróomi minute yaa yey de waaw na ñëw na géew bi yaatu tuuti rek gaa yi ñëw leen waxoon naa leen ko entretien bi ñun la war à à à vie kenn du ko def ku dul murid yi Mbàkke yéena yey ne xaaral ma ñëw sataahina walida loxo ci kaw bàkkaar ci suuf sataahina walida xayru nabi yan xatada xayru nabi yan ngeen ci yoneen xatada makkata xayral urami. makkata xayrul xurumi. loxo ci kaw Bakar ci suuf. diwaanu Kébrin Fadaa. yaa wa xam la nu fi haa. yaa wa xam la nu fi haa. sakkuloo fartafa. fartafa. naxwa samal mukarimi ata. naxwa samal mukarimi ata sarirul kasara. alli awla lin tara min nuuri. léegi awla lin tara min nuuri afdalil wara. rabbi alayhi sallimi ba'da salati la tazal bil ali wa sahbihi udal wa bi yahu tabi sabil bilahi ma wala ma sahima wa wali jala du jaxulu bin du jaxulu wala سوي المقامات الأولى واسمي واسمي خد خامة خير البصري وسقيا sumare ila tawi takabburi kalmadra wasanjumi yaman bi sadalilal ku sopp sayyiduna muhammad ne fan li nu magal yaman bi sadal khital yawma taru fi rijal yawma rida wal wajmi bi zalika yawmul falah lisifdain wa rabah lisifdain wa salah li kulli shakhsin muslimi yaman bi khafara sulaba man khadara قتالها رب الورى كبيرة كلم من لا خذوا الخير ثياب في زوج ثياب وهمان وسر ختام زوج دفاع أممي تنازل الموت معها والكل منهم سجوها والكل منهم سجوها يبقي لخاء أو يسرى يبقي لخاء أو يسرى لهم بماء الخمم وقاتلهم الخناف هم سفي سفهاء هذا وإلى جمال وكم ثم نحى من السماء خيل وجند وظلام إلى رئيس الكرامة بسرا بغير وكم ومدها رب الأنام بجند لا شيطان لهدد لا للحام لا للحام بل متني أرض وزوي التعصب وفي موئذ وردوا خليل ممجد جبريل nimasonadu fokojewaɗin seytoni wasaro ha ilan ɗimɓa moseosir warima ubasalahim ufala halfal imami l azami léegi nag bokki taalibi sant nañu leen gërëm nañu leen seen taxawaay rafet na waaye dama bëgg raay ya nga may ma ci rek juróom benn biit li kulli min jumlatil axyaari martabat ndànk ndànk li kulli min jumlatil axyaari martabatun cent vingt-quatre mille prophètes Moustapha leen gën laakinama ahmadul muxtaaru muxtaaru trois cent treize la yàlla yebal ci kaw suuf Moustapha leen gën li kulli min jumlatil axyaari martabatun ñaar fukk ak juróom la alxuraan tudd Musaa leen gën laatinama ahmad al muxtaaru muxtaaru juróom ñooy ulul hasmi Seydina Muhammad moo leen gën li kulli min jumlatil axyaar martabatun léegi nag moom rek la yàlla tànn ni ko nag Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu ashiddaa'u alal kuffaar ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah kooku la yàlla waxal ba mu yàgg nii nag laa ilaaha illallah Muusaa doo ko dégg laa ilaaha illallah Isaa doo ko dégg laa ilaaha Ibrahima doo ko dégg laa ilaaha illallah Nuuh doo ko dégg ñi laa ilaaha illallah Xaadim Si la ni Nuuh ñi laa wax laa ilaha illallah dawuda looy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ndax lan wa rafax naa lakka zikraka moom daal deux deux deux deux deux qui se suivent le second se met à am déet gaa waaye déggu leen ma laa ilaha illallah Moussa amul laa ilaha illallah Isa looy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon gaañi nag buñ demee nag ba agsi fii léegi nag soññee baa ngoo ko jërëjëf jëwriñ un guide éclairé et un exemple liggéey baa ngi nii bala ngaa jaxees bala ngaa jaxa simaak suuf da ngay jaxasoo borom asamaan suuf sëriñ bi moo nekk maayomba تبارك رب لي خدلا وحده فقيرا خريبا عند قلوى وبافلي daje gouvernement français sëñ tubaa xeexul ak benn tubaab gouvernement français waaye nag ndimbal nañ ko wut ñun murid yi ci sëñ tubaa bi France toroxee 1914 armée yi di leen bëgg a rey la balle qui me tuera n'est pas encore faite L'homme qui le fera n'est pas encore né. Si ce n'était pas la peau noire, je tuerais la France en 24 heures. ñu ne daaj Sëñ Tuubaa joxe 400 tirailleurs murit ñu dem ba franc bi war a daanu franc bii di CFA war a daanu Sëñ Tuubaa ni du ma leen seetaan booba gouverneur du Sénégal cinquante mille la jox gouverneur de l'AOF cinquante mille francs maami Cheikh Mourtaka joxe cinq cent mille francs français ñu dem ba Arabie Saoudia leetar maa ngi Xaadim si la mii Arabie Saoudia jom mi ñu war leen a bombardé ñu jonni le jox leetar bi Serigne Touba ni ko yow mi yow mi fi nekkal xaadiriya nekkal fi tijaniya woote muridullah mbooleem yoon wu jëm ci yàlla tey yaay patron ah sëti yonent bi fee ci Madina ay problème am na fa boo gaawul ma am Serigne bi yónni xasida ni jàng leen ko jàmm am waaw kon kuy borom jàmm du ngeen ma ko laaj sëñ moo jël dëkk bii balaa woo yàlla xam nga yàlla mooy yaasalaam balaa woo yàlla da ko tudde dëkk daaru salaam tudde ko doom abdou salaam door wax yàlla yaa moo tax yàlla jox na ko jàmmi tey ak ëllëg kon buñ demee ba France jommi sëñ bi dimbali leen Arabie Saoudite jommi sëriñ bi dimbali leen bii sëriñ amul ci kenn ku muy laaj dimbal ana lu tax dafa wax ni nafaa at nii nafaa at nii def leen ni seen loxo ci dënn bi foofu nag laay daaneele kàddu gi nafaa at nii yàlla jariñ na ma wabbiye ci man mii yan fawul waraa lay jariñe bindee fii moo tax murit du ma jàll du yalwaan duñ tabax di xaar kenn ba darajey kenn nun kot nun rek nun doog tegal xeer suba seet bu la neexee nga teg xeer suba tout de suite murit yi def li nga bëgg ndax amul ku mel ni yow waaye gars yi taxaw ma ne xeer tegal xeer suba boo demee ne suñ mu takkaar 37 milliards yi muy wax léegi dem naa ci télévision bi benn murit 37 mille mille un million de murit 37 bu mat